asalaamualeykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 mbir amatina de kii di Fodé Ballo-Touré ñu ngi séntu ne du bokk ci match bi Sénégal war a amal ni ki suba Sénégal Hollande ni ki suba ci waxtu wi incha allah Ballo-Touré bi nga xam ne moo fi sësoon mo fi desoon ndax xam ngeen ismaël Ismail Jacobs la ca jot xew yeb ci mbiru kayitam xam ngeen ne jàppandiwul mu joué ci match suba bi léegi nak Ballo Touré mo fi desoon mo don tagatu ak gaynde yi ñu woowoon ki nga xam ne Moussa Ndiaye ngir mu ñew de nga dal di ak mom ci walu googu waye ki di Ballo Touré mom nga xam ne moom lañ xibaar dañu biral ne dafa am gañu gañu niki dembu la ko amoon nak niki dembu la commencé won am li nga xamantene moy metti yoy le tay ji sax dafa wuté li nga moy tagatu gaynde di amal gaynde ci jamono bi ñu ngi doon amal ay tagatu muy tàggatu bu mujj balaa ñu dugg ci li nga xamante ne mooy coupe du monde bi waaye Ballo Touré di wuutee ndax métti jooy nga xam ne am na ko am na yenn ci kayiti yoo xam ne sax dañoo xamle ne carrément daa forfait waaye li ñu gën a jàpp moom mooy li ñu gën a mooy dina wuutee match boobu war a dox diggante Sénégal ak Hollande nekkagul nag benn communiqué bu officiel bu génn ci ne Ballo Touré moom forfait na waaye loolu mooy li ñu gën a jàpp te jamono bii nag amul keneen ku fi ndax Moussa Ndiaye bi nga xam ne moom la ñu woo pareegul walaa ngir war a mën a jouer ci match boobu ndax fi day jàmp lool ñew tay football suba loolu yaakaar na dina nek lo xam dina metti trop ci ko xamanteni sax manam dafa joge ci denga mariage xam nga ne koku kon fan yi mu ngi won ci repos amana dina te laaj ngir mu tagat yaram bi yëngal yaram bi ay yoon bala muy dugg ci terrain bi voilà kon fu fekkente ne xeyna na di balo Touré jàppandiwul ni niki suba comme ko kayti xibaari bi birale li ñu sentu a séntu kon amana Abdou Diallo moy dem ci côté gauche bi Abdou Diallo lañu gëna sentu bu ne ki di balo Touré kon wul voilà kon fofu nak mom xam na ne kay and Koulibaly mooy doon coow ndax ndax Pape Abou lay doon ndax Formose Mendy lay doon ndax bu ñu fàtte ne Formose Mendy arrière central la polyvalence am moo ko yóbbu ci muy jouer latéral waaye fa kii di euh, Formose Mendy Formose Mendy ab arrière central la te daaw bokkoon na ci défenseur yi gën a xarañ ci Ligue bi tànnoon nañu ko voilà kon loolu dafa nekk loo xam ne xëy na moom la ñu gën a séentu Bala Touré amaana bu fekkente ne wuute na match boobu Abdou Diallo ci gauche bi Kalidou Koulibaly ak Formose Mendy wala Kalidou Koulibaly ak Pape Abou Cissé sax wala sax boog Cheikhou Kouyaté loolu yëpp mën na nekk gars yi seen xalaat ci loolu maa ngi koy xaar ci commentaire voilà mel na ni daal xibaar yi moom bi ñu ñëwee ci Qatar ak léegi dara ci ñu ne Sadio Mané forfait na ñuy jooy noppeeguñu ñu ne Ismail Jacobs am na problème ci ay papiyam du mën a jouer ñu ne waaye tey jii ñu ne kii di Balla Touré dafa dal di am blessure te ñu njort ne du jouer ci matt bi loolu yaakaar naa ne gars yi mbir la moo xam ne lenn rek lenn rek moo koy mën a jubbanti mooy senegal am victoire ci kaw ñi di waa Hollande loolu képp daal bay leneen lu xew lu dul loolu moom xel dina gën a teey ci li ñëw ci kanam kon loolu mooy xibaar bi gaay ci kanam